tàmbali bi nag li ci gën mooy weer balaa màggal Tuuba agent yi moo dem sur le terrain tàmbali liggéey engagement yi ñu ngi fi tey que dispositif aussi incha allah sera au rendez-vous ñetteel bi si même secteur bi rek mooy wàllu cadre de vie lépp di dugg ci wàllu jet muy nettoiement dëkk bu sell bi ñi ngi ci mun naa ne taal bi ñi ngi ci tous les jours la mairie de Touba mosquée aussi mi ngi ci def liggéey waaye ci waaju waajtaayu màggal bu Tuubaa bi dinañ am bés boo xam ne mun nañu seen journée phare pour lancement wu de nettoiement UCG bi nga xam ne mooy structure état dina ñëw aussi dugal ci loxo maanaam accompagner initiative yi mettre à la disposition des comités d'organisation lépp loo xam ne ay jumtuwaay la ci wàllu moyen logistique muy ay oto mais également petit matériel mais également utiliser agent yi nga xam ne moo nekk à sa disposition pour ñu participer ci journée boobu waaye loolu également mairie Touba Mosquée dina ci dugal loxo ndax foog naa ne aussi ci ay attribution am la ci ay compétence am la dina participer également ci journée de nettoiement boobu pour indi également ay jumtukaay su ko defee suñu lëkkaloo lépp am nañ ci yaakaar ne journée boobu dina nekk réussite ñaareel bi secteur muy wàllu ndox ak assainissement mais ndox si ñaari aspect yëpp beneen bi également mooy les eaux pluviales muy wàllu assainissement inondation ndox mi am na si ay jéego yoo xam ne aussi ñi nga ci def muy yokk capacité production bi ville bu Touba muy ñetti forage yoo xam ne aussi yu bees fa def ñu am yéene ak mu aussi démarrer ko par Grand Magal de Touba ñaareel bi mooy lépp loo xam ne aussi entretien la ci wàllu ouvrage hydraulique yi loolu également OFOR engagé wu pour def ko xanaa ne ñu ñu ngi koy testé de station pompage yëpp su naa ne station yëpp ñu ngi ñu ngi ñetteel bi mooy lépp mu ne di dox waaye il faut mu am un dispositif d'appui loolu noonu mooy camion citerne yi nga xam ne dañ ko ciy teg pour su jafe-jafe amee ñu mun koo teel saafara loolu également OFOR dinañu ay camion citerne mais également le service des eaux et forêts dina ci indi sa conclusion mais utilisation aussi il faut ñu lëkkaloo ak comité d'organisation par rapport à l'utilisation des camions citernes mais autour également de l'autorité administrative muy le sous-préfet de Ndam ci benn cadre boo xam ne c'est un cadre de concertation ñetteel secteur bi muy wàllu électricité muy énergie loolu également Sénélec jël nay matuwaayam depuis màggal ba jeexee xayma nañ ba xam nañ ne liggéey lañ war a def tàmbali nañ ko li ci am solo rek mooy ñu fexe également am na ay quartier yu tuddee périphérique ñu jéem a xool nan lañ mën a def extension ba yooyu aussi quartier ñu mun koo aussi am électricité mais améliorer également l' éclairage public ndax wax nañ ko léegi éclairage public day ànd ak insécurité maanaam su fekkee ne éclairage dafa néew kaaraange bi dafay wàññeeku loolu également seen rek dinañ ci dugg mais également la commune de Touba Mosquée indi sa contribution ba nga xam ne dëkk bi dina leer su ko defee incha allah bi a màggal également si jàmm yu dina dina wër euh, wàllu kaaraange moom foo naa mooy quatrième secteur bi nga xam ne abordé nañ ko loolu les forces de défense et de sécurité muy takk der yi xaw nañ see roode ndax loolu mooy seen cœur de métier waaye pexe aussi kaaraange nañ jàpp ne Euh, malaanu sutura aussi moo ko ndax wax nañ fi lu bari ay cas sécurité mais pexe yooyu aussi même suñ ko naree mettre en œuvre foog naa ne day nekk entre kilifa yi ak autorités yi nga xam ne ko ndax yooyu également suñ ko teelee fësal tamit la nga ca bëgg du ci loolu foo naa ne dégg nañ ko te incha allah rabbi dinañ ko ci liggéey ndax am nañ cadre yoo xam ne dañu permettre ñu dajee ñu ne ne lañ nas comme pexe incha allah rabbi dañ jéem a dem def ko avant màggal ba fépp boo foo xam ne aussi ay ñiy def lu ñaaw ñoo fa ne ñu fexe ba loolu aussi dañ fi su dañu aussi ñi nga xam ne aussi jàpp nañu aussi ñu teg leen noonu incha allah bi dañ ci liggéey aussi kaaraange bi ci dëkk bu mu tedd boobu euh, si boole woon si la sécurité routière muy sécurité bi ne ci tali l' état des routes maanaam télé bi yow mel foo naa ne agéro démarré na travaux entretien yi ba lépp loo xam ne foo naa ne ay par la ñu mën koo jéem a defar pour gën a minimiser aussi les accidents de la route tàmbali nañ ko biir Touba mais incha foo naa ne nit ñi fa la ñuy bawee koo pour ñëw Touba mieux même am na ci ay tel yu bees yoo xam ne ñu ngi koy tàmbali te incha rek foo naa nee nañ demee lay tàmbali muy yoonu daaw Karim bi mais également yoonu Baye yi ak yoonu Tidone yi loolu yëpp également foo naa day gën a rek la mobilité urbaine ci ville sainte de de Touba. enfin maintenant li nga xam ne moom lañ mujjee rek ci point muy wàllu communication euh, Sonatel également engagé wu na pour mën a améliorer maanaam réseau bi mais également la collectivité mën nañ si sipp benn rek muy le réseau de Ndéboji bi nga xam ne mooy pour sëñ Moustapha pour sëñ Mbacke Soxla Lo nee nañ nañ ko. te am nañ yàqin na dinañ ko pare ci fin waaye li gën nee na ñu ngi ciy góorgóorlu pour ànd seeg ba fexe xool nañ koy mën a tab jeexale balaa màggal bu baax loolu su ko defee mën naa ne réseau boobu dina gën a am solo ci biiru également fan naa ne mënuñoo teg lépp mais secteurs yooyu lañ ci jotoon àddu li ci des rek mooy ñaaxaat laisser de service ñi nga xam ne tey ñoo fi teew ak ñi nga xam ne aussi dañ fee teewal seen i kilifa. ba lii nga xam ne aussi tënk nañ ko nañ ci góorgóorlu ànd seeg Pastef borom bi nag mooy motte waaye yéen a ngeeg Pastef bi moom doomu aadama mën na ko indi au te loolu lañ di ñaan li ci des war nañ am na ci yaakaar ne borom bés bi dina ko motte ndax li ma wax moo ci nekk dañ ciy teg suñu loxo ndax fonaa suñ ko tegal tamit dina dem kon nañ fi barkeelu teg suñu loxo ba yàlla dimbali ñu ba màggal bi ñu def na nekk màggal bu muy ko defee ni également def nañu réunion CRD mais duñ ci yem niñ ko seetee par pôle noonu lañ ko xalaat di def des réunions sectorielles maanaam pôle bu ne ñu jéem a xool di ko xool na xool l'état d'avancement li ci am solo rek mooy fi nga xalaat ne gis nañ ci mu am soo ko solo ñu teel ko yëg loo xam ne fii lañ koy saafara ñu def ko li nga xam ne aussi kilifa yi ñoo ko war ñu ànd ko aussi yëgal kilifa yi ndax xam nañ ne aussi am ngay ay yoo xam ne ci jàppee am nañ aussi suñ ko boolee saafara a mën a am kon noonu lañ koy defee réunion sectorielle même si biir secteur yooyu nga xam moom lañ dégagé suñ si gisee benn boo xam ne jafe-jafe yi na tam rien ne nous interdit ñu def si benn réunion bu boo xam ne ñooñu lay concerné rek jéem a xool ñu koy mën a saafara pour naa ne le suivi sera fait mais mu gën a rapproché wu entre le sous-président le préfet de Mbacké mais ñun également on aura une attention particulière sur le grand ne c'est notre premier magal en tant que gouverneur de la région mais c'est pas notre premier mandat nga xam ne participé nañ ndax fii la joore woon comme adjoint gouverneur de Diourbel de 2005 à 2007 kon am na loo xam ne xam nañ ko njaarim également lañ nekkoon pendant 6 nekk préfet bu Diourbel kon am na ci loo xam ne aussi ñu ko doon dund de léegi nag suñ ko yoree suñu loxo tamit on a ci gën a ànd Pastef tur bi moom buy la borom toujours wax ko ak Ibrahima moom su duggee loxoom liggéeyal également sëñ bi mais liggéeyal également les autorités de l'État te am nañ ci ne incha allah bi lépp loo xam ne suñu kàttan aw suñu mën-mën wala suñuy xel may nañu ko duñ si mos a dellu ginnaaw rien que incha bi màggal bii nga moom lañ jëm suñu borom defal ñu ko mu nekk màggal mu ngi ay mu nekk également njëriñu réew mi loolu jaruñu ko si waxat yi ndax màggal Tuubaa ñëpp xam nañ ne teewal nañ njëriñu si réew mi mais également au niveau international. on a carrément bëgg a dëkk rek avant yëkkati di joxaat sëñ bi rek comme que ay ñaan yu ko wéeru mu defaat ñaan rek